ab lakk bu métti moo am bésub tey bi ca marché bee ñuy woowee salle de te mu nekk ci avenue Lamine Gueye ci Dakar lakk gi nag euh, metti na lool te def na it yàqu-yàqu yu bëree bëree bari fi mu nekk nii nag xamaguñu lan moo waral boobule lakk bésub tey bii nag euh, la ñu tàmbali li ñuy wax révision exceptionnelle ci yu liste électorale yi ngir waajal li nga xam ne moom mooy élection législative yi nga xam ne moo war a am le 31 juillet 2022 sénégalais yi nga xam ne nag euh, jotaguñu inscrire kon ci liste électorale yooyu ñu ngi leen di wax ñu dem inscrire ji ak it euh, ñi nga xam ne dañoo bëgg a euh, changer seen lieu d'inscription ñi nga xam ne it dañoo amoon statut militaire paramilitaire wala bu si bëgg koo changer ak it ñi nga xam ne dañoo bëgg a génn bëggatuñ bokk ci liste électorale bi ñooñu ñëpp daal ñu ngi leen di wax pour ñu dem jege li nga xam ne moom mooy commission yi nga xam ne kon installé nañ leen xibaaru Afrique benn ponk lay doon muy ca Côte d'Ivoire foofa nag ab immeuble boo xam ne kon euh, ay nit ñoo ca dëkkoon moo màbb ba sax am ñeenti nit yoo xam ne ñoo ñàkk nañ ci seen bakkan ñaari xale bokk ca mbir mi nag mu ngi amee ca Abidjan ci quartier bu ñuy woowee engrais mu ngi xew kon démb gannaaw bi nga xamee ne minuit passé na kon ci la jiyee jooju am am na sax lu toll ci trente am na kon lu toll ki 30 personnes yoo xam ne eh, jot nañ leen évacuer hôpital 13 ci ñoom sax dañ leen hospitalisé ñi nga xam ne nag eh, ñoom ñooy ñiy def sauvetation ñu ngi doon wéy di seet nit yi nga xam ne kon dañoo desoon ci biir bâtiment ba. xibaaru bitim réew it benn ponk lay doon muy guerre ba nga xam ne mu ngi am ca Ukraine na te nga xam ne waa Russie ñoo leen song ñu ne ba sub tey bi nag dafa am 13 personnes yoo xam ne dañ doon bu ñuy wax. Makarif kon ñoom ñoo ñàkk seen bakkan gannaaw bi nga xamee ne kon dañoo bombardé boobu.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 cinq vingt quatre vingt 24